bii nag benn xale bu am fukki at ak juróom-ñaar la dem kër docteur di saytu jëfandikaay yi nga xamante ni mooy tax ba du ëmb te doo am jàngoro booy sëy ak benn xale buy waxtaan ak benn xaritam ci mbiru aar sa bopp booy sëy ak jigéen. salaamaaleykum sama xarit nanga def. maaleykum salaam maa ngi sant bu baax yow nag. man weer bee paase damaa jaaxle woon lépp loolu ndax gisuma sama règle xalaat ne dama ëmb wante sa leeral ñëw na. weer wee ñu génn demoon naa kër docteur ñu xamal ma ni am na njumtukaay yu bari yoo mën a fagaroo ngir bañ a ëmb yu ci mel ni mbuus bi ku góor ki di sol ay doom yooy naan walla yooy mën a dugal ci sakk awra yow ku jigéen ki ak yeneen ak yeneen ma daldi ci tànn bi nga xamante ni moo gën a dal sama xel daal di koy jëfandikoo. ah comprendre li nga wax nu may def ba dem ci ñaata laay fay man dan ma waxoon ne pilule bi daa cher lool. muy li liñ lay saytoo muy li ngay fagaroo yépp doo ci fay dara am na yit fu ndaw yi fajoo maanaam xale yi am diggante fukki at ak ñeent ak fukki at ak ñaar fukki at ak ñeent jërëjëf dama ruus wax ci loolu te après dama xalaat ndox pilule bi day gaañ. man mii dama ko ragaloon a jël ci lan ma wax ni wóor na yow daal fexeel ba boo koy naan nanga ko naan bés bu set bañ koo tëbal wala nga di ko fàtte waxtaan nañ fa tam beneen fagarukaay bi nga xamante ni mbuus mi nga ko war a jëfandikoo. mbuus nga war bu mbuus mi yàqoo bu ni sëy nu mu war a def. bu boobaa rekk nga mën a def benn affaire dem pharmacie jënd fa benn doom bu ñuy wooyee bés ba ca topp doom boobu bu dee xale nga kenn du la ko jaay te andiwoo këyitu doktoor te boo xamee ni tey nga sëy balaa ñetti fan war nga ko mën a naan ci entre ñetti fan ak juróomi fan doom nag. du doon yu nuy naan pour fagaru doom la yoo xamante ni booy sëy nga tiit ni dangaa ëmb nga ko war a naan ndax nekkul doom yu nuy jël bés bu set ndax mën na laa gaañ yow il explique poste de santé de bëri na de waaw waaw xamal nañ ma tam ni ci sëy mën nga cee jële jàngoro ju nekk moo la ci mën a jële lu la ci mën a dimbali nag mooy nga fagaru sol mbuus mi man bëgg naa ci yóbbu sa benn xarit man te daa am ñaar fukki at ak juróom mbenn mën na cee dem wala xanaa xamoo ni jigéen ñi am ñaar fukki at ak juróom ak lu ko ëpp dañoo wara dem hôpital ñi yor njaboot gi gis nga boo duggee ci situ région Toscana di nga fa gis ay bërëb saytukaay yu bari yu mën a dem yu la nga mën a dem ci bu la gën a jege sax am na seen numéro téléphone ak waxtaanukaay yu bari yuñ fay ibbi gis nga boo fa demee dangay ànd ak xel mu dal ndax man ca tàmbali ba dama doon rus ba pare ragal waaye gis nga bi ma fa demee dañ ma dalal sama xel digal ma xamal ma yu am solo yu am njëriñ yoo xamante ni bu ëllëgee su ma amee jafe-jafe dinaa xam fu may dem ak ñi may waxal. jërëjëf dinaa ca dem.